salaamaaleykum euh, chers internautes de Sénégo Kawtef euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax comme ni ñu koy defee saa su ne rek euh, xam ngeen ni Sénégo dañ leen di dem di leen dénicher suñuy star ñi nga xam ne nag dañoo làqatu tout le temps dañ leen di génnee tegal leen leen donc tey nag ñu dalal fi koo xam ne ne daf ñu bercé pas sax ci côté woy bi muy def mais fecc bi depuis ñu nekk xale kooku du keneen ku dul Ameth Thiou Ameth Thiou ñu ngi lay nuyu bu baax dina la dalal ci Kawtef Sénégo ah maa ngi wax alhamdulilahi rabil alamin eh, di sant yàlla bu baax bu baax a baax a baax a baax julli ci yonent bi sant samay ñaari waajur gërëm kilifa diine kilifa aada yi gërëm sama wasila Seexul Xadim jàmbaari lislaam sëñ Muntaxa yàlla na ko fi yàlla bàyyi ak bépp mboolem jullit te ngay xalifa ne ci réew mi sëñ Bay Si Mansour eh, laayeen yi kunta kunta yi amul fuuti taal njabootam gi yëpp njabootu seex na seex saat bu yëpp maa ngi leen di baalu àq di leen nuyu nuyu bi tedd te di leen ñaanal seen barke maam mu sax fi amet cu noonu laa nuyoo doomu géejawaay ni nga nuyoo neex na ma. waaw voilà donc dañuy ñëw nag déjà ci ballon d'or bi nan nga gisee euh, prix Socrate bi nga xam ne ne moom la euh, prix Socrates bi nga xam ne ne moom la Sadio Mané gagné ci action humanitaire yi nga xam ne ne moom lay def à travers le Sénégal à travers le monde. Sadio jàmbar la nitu yàlla la parce que bu ma nee nitu yàlla la nit ñi mën nañ ko gisee neneen mais kuy doomu aadama rek yàlla la bind. yàlla la bind. te yàllaa la moom waaye Sadio Mané bokk na ci ñi nga xam ne fii ak cinquante ans ku nuy waxtaane la am na succès ndamawu ko bàkkuwu ko xale bu dal la xale bu am yar la simplite gi ci moom moom a gën a neex ci moom diggoon naa ko woy ne ko dinaa la woy barke yonent bi dinaa ko woy xamul tax ma koy woy mm. Euh, Sadio lu mu am rek yàkkamti na weer yàkkam maanaam moom yàkkamti na weer bi dee ba mu jël yóbbu Bambali nekkul ci affaire extraordinaire yooyu man ak moom ci loolu téléphone bu mu am baax na man téléphone bu mu am baax social bi muy def dama pendant cinq ans six ans maa ngi koy def man xëy na nag li mu yor man yoruma ko waaye man maa ngi def social yi muy def mais exemple la ci Sénégal. waaw ah, mais ah, xam nga des fois des fois mu fësal mais des fois ma def lépp ci suuf. Hmm. xam nga parce que nag lu baax boo koy def sax da nga koy fësal waaye man des fois ma préféré def mais daal li ma bëgg nga Sénégal yi xam ko mooy doomi doomi Bambali bi ku am jom la ku am ngor la ku diñ la ku gëm yàlla la ku ñëpp respecté la xam nga sénégalais dafa neex a respecté sénégalais bu jëlee culture am rek ñu respecté ko hmm. culture am mooy yaru xam la ngay wax gëm sa bopp nangoo liggéey am dal am yar am teggin kooku mooy sénégalais te loolu boo ko melee rek ah, da ngay neex a bëgg parce que Seydina Mohamed noonu la mel yonent bi gën di def boo xoolee sunu maam yi ñi nga xam ne tey ñoo leen ñoom la ñuy roy ñoom te roy ci yonent bi danoo dal am yar am teggin Cheikhul Khadim jàmbaar l'islam ah eh, maam El Hadj Malick borom personnalité bi. Sadio Mané yal na ko yàlla defal jàmm. amiin yal na ko yàlla dolli sutura dolli ko kattan ndamoo ko xoolal démb li mu sol ni mu simple. waaw ñëpp def ay costume cravate. moom Sadio sama Sadio man maa ko moom. da ko bëgg a aakimoo nii. non non hmm. dama koy aakimoo xam nga tax. dama koy ko ba pare man maay jël li ma ko woy yëpp dem may ko ko yëkkati 10 millions may ko Sadio pour wala ne man géwél laa boo xam ne bu ma la wooyee rek. Hmm. am naa fu ma ko teg. mais man su ma ko woowee ba pare. Mm. dinaa jël seede yëpp defar ko jël 10 millions may Sadio Mané. kon ñu ngi xaar woy boobu ndax xam naa ne woy boobu bés bu génnee sénégalais dinañ ko aakimoo ñoom it. incha allah dinaa koy woy bu rëy jara jara nañu. bi nag dañuy ñëw ci li nga xam ne moom moo xew. Mm-hmm. Euh, muy li nga xam ne woy bu rëy bi nga jël. waaw euh, woy ko ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall. moo ni toll de. nga ne da nga koy delloo njukkal. waaw lan moo tax nga choisir delloo njukkal ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall. war na képp kuy sénégalais. war na képp kuy sénégalais rawatina nag euh, may doomi géwal di doomi buur géwal samay maam doon tagg ay buur yéli ma nel Fall mooy suma maam mbay sàmb yu gëme san sàmb yéli ma nel buur la woon comme ni Macky Sall nekkee njiitu réew nii alors yéli ma nel Fall suma soon di dem di seet seeti seexlu xadim samay maam a koy tagg di ko tagg di ko tagg di ko tagg di ko tagg ba mu ñëw bu ci bunt bi ñu waa nan nan def naa ndax ku tedd ki la ñuy waxal benn bis ñu def loolu sëñ Touba dégg leen tagg bi moom dafa dafa neexoon sëñ bu mag bi sëñ Touba dégg leen njaareem ne yelli wax lu tax nga ni sa mbokk yi ñu arrêté mu ne ko non dama doon bañ sëñ bi kër mu nee la ñu wax yugo ak mbay samay maam wax leen ñu ñu koy tagg alors bi ñu koy tàgg sëñ Touba yëngal bopp bi génne xaalis ne may leen ñi ba pare ne leen teral leen ñi ne ko yëlli ma nel lii ñu la wax ñoom yuga ak mbay sàmm ni loolu laa wax yonent bi ba yonent bi def ma nii ma def kon man dama doon tagg buur président Macky Sall dama gëstu ci moom li mu liggéey ci réew mi bokkuma ci polémique bi mais dama gëstu li mu liggéey ci réew mi bi Sénégal sosoo ba léegi cinquante ans cinquante deux ans la fi PS ne ak Ablaye Wade quinze hôpital lañ fi def ci cinquante ans yi ci cinquante deux ans yi quinze hôpitaux lañ mhm. la ñëw ci dix ans. Mhm. def cinq hôpital def quatre universités. stade yi. Mhm. arena bi mooy arène nationale bi Senghor moo ko diggoon gars yi Senghor. defalu leen ko abdu Diouf ñëw defu ko mhm. Abdoulaye Wade ñëw defu ko Macky Sall ñëw teg ko tegal leen stade mhm. arena arène nationale benn stade amitié leen fi amoon fale la ñuy recevoir lépp bu nu amee bis bu mag sax fa lañ ko yóbbu mu ñëw defar stade bu dàq stade amitié defar na basket boo xam ne fa la basketteurs yëpp di ne di tabaxaat yeneen stade kon dama gëstu ci wàllu mbay mi mu def ci lu am solo salaire mu def ci lu am solo ah jël teer bi teg kenn xalaatul woon teer dina am fii ah BRT bi ñëw mu nekk jàmbaar bi ma gëstoo loolu nag ma ni man dama war a woy kii sargal ko. mais euh, ñu bari nag dañu yaakaar ni Ahmed ñu bëri dañu jàpp woy bi ay dóor la walla nga bëgg a ut yoon pour dugg ci politique. waaw xam nga léegi génération bi dafa mel ni bëgguñu lu baax bëgguñu nit di wax nit lu baax bu dee wax sa mbokku sénégalais lu baax mooy mooy ay dóor kon ñu ngi nax seen bopp. et man bu doon dóor sax damay dóor damay woy affaire bi ndànk rek après génn du ma ko sax clip waaye man sama image laa joxe ci risque laa nekk ni maa fay samay million dem woy sama président sargal ko tagg ko te fabriqué ma dara li mu liggéey laa wax jël sama image nekk ci man kese tey bu doon ay dóor la damay jël clip bi def ci ay nit ñu bokk ci ma làqatu mais man maa jël clip bi man kese fecc ko woy ko ak xol kon loolu dóor la sama image laa laa ci mbedd bi de. ñu bëri aussi loolu la ñuy laaj nee nañ clip bi da nga sa bopp. Ah. feccal ko sa bopp. waaw parce que président de la république dama ko bëgg wax ni man maa jël sama engagement sama responsabilité bopp woy la ci xol bu rafet ak tagg la buur soxlawul ku ko tàccu mais soxla na ku ko wax waaw góor soxla soxlawul ku ko wax waaw góor hmm. eh, ma bëgg hmm. ñu xam ni. li ma war a woy dama ko war a woy ki ma war a sargal dama ko war sargal waaw la demee. léegi. Euh, jaru ko jaru ko jaru ko jaru ko. jaru wàññi. non dara saa yu toll nii. Hmm. dara bu ko yokk. ah d'accord ok Max bëgg a kii bi. Euh, ñu ñu dégg ni aussi depuis bi nga xam ne ne clip bi génn na depuis bi nga woowee président ba tey da ngay jot li nga xam ne moom mooy ay menaces. waaw ah. donc nan nga jàngatee loolu woy sa président. Mhm. après di di jot aussi li nga xam ne moom mooy ay. menaces waaw mais loolu ay kii rek xam nga ñiy menacé yëpp caaxaan rek la ñuy def mais àdduna amul solo te et bu dul dara sax euh, bu bu ñu yaakaar ni nag ma bàyyi sama bopp noonu man dafa am ñu ñu nekk sama ginnaaw nag nan ma nan ma moytu quoi dafa am ñu nekk sama ginnaaw nan ma moytu nan ma bàyyi nan ma nan ma may jàmm dama am droit woy sama njiitu réew. Eh, fii laa koy waxee nag quoi man maa ngi ci jàmm dara daluma am na ñett ñeent yu ma soupçonné barki Serigne Saliou Mbacké démb wax naa ko magay sama xarit wax naa ko magay am na ñu ma woo ah, am na ñoo xam ne sama buntu kër yi ñaan ma weccet ay grand ma may leen weccet ñu dem euh, ci veden bi man sama kër su ma génnee rek veden bi laay jël am na ñaari oto ba ñetti oto ñaari oto yoo xam ne xàmmewuma leen mm-hmm. mais dañ may faral di topp mm-hmm. su ma bëggee jàdd continuer ba gaare ci la ñuy doog a dem. ça veut dire que waaw xam naa daal dañ may topp man nag bu ma nekkee ci oto bi ba taal sama musique du ma kii fi ma jëm rek laay xool. ma waxtaan ak su ma ne ñu ne ma da ngay jàpp maturité bi xaw mm-hmm. mais loolu amul plaque. te beneen oto bi genre clando la may wax nag sénégalais man dama am droit sarkal sama njiitu réew. Mm-hmm. billahi wallahi taalahi ku ci jàkkoor ak man di ma wax loo mu war ta wax dinañ ko defante bu mu saf-saf. parce que dama am liberté woy sama njiitu réew dama am liberté woy keneen keneen xanaa ñiy jéem a di ma indil problème xanaa ñoom ñaanuñu yàlla buñ toogee ci réew mi liggéey fi loo xam ne artistes dañ leen woy mais attends loolu est-ce ce que sax lu normal la. gars yi lan moo leen jaaxal. waaw instant bii nii dañu ne euh, président mu ngi ci ci ci dernier mandat. waaw instant bi nga ko woyee c'est comme si yow da nga nekk da nga nar a sax nekk di dëggal li nga xam. non non non mais mais attends mais yow déjà ban ban ban xalaat nga am déjà. ci troisième xam nga man ay troisième mandat ak sixième mandat xaw ma ci dara. loi Sénégal constitution ñoo xam seen yooyu. Mhm. man duma politicien. man dama sentir président géntu ko depuis Turquie. Turquie nga ko géntee. géntu ko ñaari yoon ñëw woy ko ak aal woy ko ak xol def ci sama xaalis. sama baat ca kaw man fii laa dëkk gendarmerie Foire jege na ma. bu joxe sa adresse ndax wóorul. non ma ne non dama ne waaw ñu may topp non ñu may topp ñu may topp parce que xam nañ ngi dawal oto bi laa wax. di ma teg man du ma nelaw guddi sincèrement man noonu laa may génn doxantu mais nan ma may jàmm barki Mouhamed billahi nan ma may jàmm balaa ma cee kenn faat xam nañ ni maa leen gën a wuyu fëpp balaa ma cee kenn def dara dinaa dinaa leen ko def. am naa droit xaaral rek dama am droit woy sama président lan mooy problème bi am naa ci droit am naa droit sargal sama président duma fi nekk sax nan état bi ñu jël ma pour sécurité yooyu déedéet nan ma may jàmm man mun naa si yàlla rek laa dénk sama bopp ak samay ñaari waajur sama baat ca kaw nan ma may jàmm oto yi may topp barki yonent yàlla Muhammad bis bu ñu jàkkaroog man dinañ xam ne jàkkaroog nu góor dëgg ban dëkk la nekk dëkk boo xam ne boo waxee fulla wax fayda ñu ñu lay indi problème boo waxee lu baax ñu lay indi problème booy saaga ak xasta yaa fi ne booy saaga ak xasta daal dana lay sax garde boo waxee lu baax dana lay indi fitna. léegi yow tey Macky Sall bu jógoon ne day def troisième mandat yow ban gis-gis. non mais déglu ma man nekkaguma ci ay ay cadre troisième mandat il faut ngeen jël woy bi ne Ahmed Thiou dafa xool li président liggéey lépp ma wax ko am na ñu opté xalaat ay. leneen ak leneen est-ce que yow léegi la moo tax yow noo xalaat nii rek président kon li ma wax nii président Macky Sall moo ko def wala defu ko li ma fi lim yëpp ne moo ko liggéey moo ko liggéey d'accord nga mais lim fi liggéey man moom laa opté wax am nañu opté saaga nit am na ñu opte génn ni defu fi dara saaga ko xas ko man dama opté xool li mu liggéey ma wax ko lu ma ci góobee gar ko ministre de l'intérieur maa ngi lay wax lii nag may wax état Sénégal ki diriger état Sénégal laa way muy seen kilifa di suñu kilifa di kilifa yi tous les sénégalais am naa droit way ko bu dee nag dama ci bëgg am ay tuuti problème non xoolal dara daluma feebaruma dara daluma maa ngi ci jàmm samay doom a ngi fi sama yeneen doom yaa ngi Europe sama papa suma yaay ñi ngi dund samay mag ñi ngi fi may soutien de famille. ñu yaakaar ma pendant vingt cinq ans may may te di leen teral ci sama doole sama kàttan benn morso bu ma woy président de la république bu Sénégal sargal ko wax ko ak xol bu fekkee loolu lañ ma bëgg a faatee wala ñu bëgg ma sonal ci loolu on verra maa ngi fii ci dëkk bi te man du ma kenn mënu ma xoxatal du ma génn du ma toog sama kër war a dox sama business du ma ko dox man Ameth Thiou man maa wax loolu